joxe injonction kenn ci nervi yi ne leen bu leen ko dóor bàyyi leen bu ñu yegg fële ba paree récupérer sama téléphone yi gendarme yi ñoo ko mujjee récupérer ci ci yoon bi ñu yegg si ci seen QG bi nga xamante ne c'est quelques dizaines de mètres ak fu ñu ma intercepté bu ñu bu ñu yegsee comme de gendarme yi ñoom dañoo supérieur ki nga xamante ne moo nekkoon chef élément yi nekkoon foofu moo waral ngeen di dégg tour chef Sow xaw ma sax turam ñi seetaan vidéo bi am na de sénégalais ay images yi lu ñu gis image yi choqué ñëpp waaye am na ay vidéo te dinañ ci dikkaat Cheikh Sow moom bu ñu yegsee moom tamit naturellement il a posé la question kii kan la lan lan moo lan moo xew nervi ñooy waxaat ba léegi changé nañu version par rapport ak seen version initiale waaye changé wuñu seen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la jeunesse ba pare ne chef Sow ndax xamoo kii kii mooy par Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di taal réew mi di attaquer nit ñi ci la bokk te pourtant seen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci chef Sow dañoo changer version ne kii moo nekk ci réseaux sociaux yi di inciter jeunes yi à ce ñu taal yàq réew mi ma démentir ko ci saa si ne leen loolu ñu wax amul de après beneen nervi ne fekk nañ ko sax muy wuyu téléphone di jox ay instruction naan kaay leen attaqué fii ñëw leen fii kenn nekk fi ak ñoom seen ma ne ko amul de jox ma sama euh, récupérer le nga jox ma ko ma déverrouiller la ko parce que amuma temps wu sax coupé sama appel suñu supprimer wul appel bi ñoom di nga gis kan laa doon waxal mu jox ma mu ubbi ko téléphone mu dugg xool dernier appel mu xam ni loolu amut ma yemuma ci appel bi kese ma dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal ko sama WhatsApp dévrier ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii bu la neex dugal nga xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool ñaari téléphone nag laa yoroon doyen Mamadou Mbodj ngi nii du ma bàyyi ma fenn parce que benn téléphone bi vu que j'étais le chargé de tout ce qui est communication digitale de la plateforme F24 ñoom ñoo ñoo ma joxoon benn téléphone pour li pour yombalal ma liggéey bi beneen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi dañoo gis euh, euh, bu ko euh, chef Sow taalee dafa gis image yu Sonko image yu président Ousmane Sonko la gis ci ci ci ci sama de d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul wax yow lu tax nga def yow lu tax nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme de man Euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni gendarme yi xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone bi maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond d'écran ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond d'écran Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daanu ci lañ ma ci la ma dugal coup boo xamante ne du ko fàtte nit moom chef Sow ki jiite woon gendarme yi nekkoon foofu ba pare joxe ordre ay éléments am ne leen yóbbul leen ma ko fële ci côté mur bi. dinañu wax kat moo ko yónni ñu jagat jagadee ma gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarme nervi yi ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci QG bi romb nañ ay yeneen check point nervi yu ñëw dolleeku ci lim bi maanaam ñu ñu sekkoon ñëpp ci gendarme ak ay nervi ci xayma matoon nañ cinquante personnes ñu yóbbu ñu taf ñu ci miir bi toogloo ma ci suuf ma toog. ñu ne kan moo la yónni ma ne kan moo ma yónni ci lan parce que nit suñ ko yónnee dafay am objectif yónni ci lan ba léegi ils sont incapables de me dire yónni ci lii ma ne leen kenn yónniwuma xëy na dañoo bëggoon ma ne Ousmane ko ma yónni pour ñu mën ko dem jëli ma ne leen kenn yónniwuma sama buntu kër laa taxaw di wuy sama téléphone et que j'ai am naa am naa ci droit dóor yi commencé kan moo la yónni tel tel tel tel kan moo la yónni tel tel tel tel duma ma duma yu méttee métti bu ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi mosumaa gis duma yu mel noonu waxuma la ma dund ko man de mais mosumaa gis kuñ ko duma dumawee jël seeni ay tonfa mooy seen baton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor damaa baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo bi ndax ay baare pour bañ kuy pour wàññi effet couille ci au niveau de mon de mon visage et sur ñuy dóor di dóor dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti ci video yi ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan chef sow ndax mën naa wax chef sow ma wax parce que jàpp naa ni su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément am yu ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté muy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaale air tuuti. ma ne ko ndax dëgg nga bëgg dégg wala dangaa bëgg ma fen la mu ne ma wax ma dëgg bi ma ne ko dëgg bi mooy kenn yónniwu ma kenn yónniwu ma jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yónniwu ma j'avais librement amee préoccupation ñu jàppam mu ne accawaat gaa yi commencé dóor. man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne 23h maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque 2 heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amut 23h ba 2 heures moins 2 heures du matin ñu ngi may torturer après ci laa jékki saay parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yi yëpp ñoo ànd def coalition doon ma torturer. donc ñu ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nerveux ko torturé ils n'ont pas amul euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturé wax nañu dëgg ndaxte ñaari identité yi.